tubaarkàlla sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen yi safoo El Vision Média man sista Eva la Tigresse maa ngi fii ci yëmbal ñu fekk fii ndaanaan bu mag moo xamante ne Sénégal kenn dootu ko présenté muy Maman Fatou Laobé yaay booy nuyu naa la maa ngi lay fay sopp la jéeri di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tamit seen kër gi macha allah nga xam ne fu àdduna toll ci doomu aadama rek yaa ngi koy bàyyi xel ci lu baax waaw maman tey El dafa ñëwoon seet si la ñu gis ne tey jii da nga euh, journée euh, fête de l'indépendance nga koy sargal sa koñ euh, maman lan moo waraloon loolu. waa xam nga nit ku nekk fi nga dëkk boo sañoon day mel ni États-Unis d'Amérique rawatina man nag fàttaloo bi yëmbal rek laa bëgg yëmbal laa dëkk ku ne xam na ne bi may door. ba tey fi ma toll nii yëmbal rek laa nekk mosuma changée fu ma dëkk Euh, fii rek laa bëgg mooy sama gox fii laa yaroo fi laa jàngee sama culture juddoo ma fi nag mais yàgg naa fi ndax sama doom yëpp fi leen juddoo te nit ku nekk tamit boo nekk ci sa dëkk bi nga dëkk boo ko yokkul yaa ko wàññi nag ñuy def suñu fête indépendance ci biir gox yëmbal def ko nag ak suñu propre moyen man ma di ko def def concert bi ak sama ñaari frère yu nekk Amérique muy Ousseynou ak Assane Koli jàpp ci bis bi ñu defal ko suñu bopp nag xaaruñu ci maire xaaruñu ci député boolewuñ ci benn politicien pour mu jàppale ñu dañ ko def ay suñu propre moyen di ñaan yàlla di ko def chaque année di ko def ndoog àdduna bi yépp lépp rek ngir bégal suñu askan ngir yaatal suñu gox ngir boole nit ñi ñu doon benn te boo demee ba gis nit ñi di nga xam ne fii jigéen ñi benn lañu. waaw maman bëgg naa xam euh, seen sénégalaise bi instant bi namm nañ Fatou Laobé euh, maman ci lan nga nekk. waa xam nga rek dama doon tukki tukki yu bëri di xaw nekk côté Amérique di ñëw ak yooyu mais incha allah ren moom dama du ma dem fenn damay fas yéene toog am lu ma def parce que àdduna bi noo ma namm nag wax dëgg yàlla parce que man artiste laa boo xam ni Sénégal yëpp ñoo may bëggee te dañoo bëgg sama yëf loolu moo tax nag dafa jot pour ma ñëw ndax ñëpp a ngi may laaj. waaw loolu moo tax dinaa maa ngi ñëw bientôt di yàgg incha allah. bëgg naa nga wax ma relation yi nga am ak artistes yi. waaw relation yi ma am ak artistes yi macha allah artistes yëpp samay xarit lañu tey gis nga ne Xaadim Diagne mi ngi fi Abou Thioubala dina ñëw Yves Niang dina ñëw ñeneen ñi dina ñëpp artistes yëpp laa ko wax artistes yu jigéen yeeg ñëpp mën na am nag ñenn ñi am jot ndax tey boo fàtte ne kii kat euh, euh, kii lan le kat waaw indépendance bi tey la programme yi bëri nañ. ñenn ñi tamit dañuy dem doxali seen programme mais ñi ma ko wax bëri na ñu xam nga xew moom dangay ngay yëgal artistes yëpp rek képp koo xamante ni yàlla dogal na mu am jot mu ñëw waaye ko amul jot tam da ngay jàpp programme moom moo tax mënul ñëw waaye wax naa ko artistes yëpp artistes yi fii yëmbal comédiens yi rappeurs yi mbalaxkat yi ak ñëpp lañ ko wax incha allah te def naa di ngeen gis. waaw maman ma gis ne ñuy tëgg grand théâtre ay ndaanaan lañ comme ni nga nekkee ndaanaan te mënuñu la nag ndax boo yuuxoo rek ñu xam ne yuuxu nga ndax danga di doomu law ba pire pourquoi pas maman yow demoo grand théâtre tey lii nga tëgg biir yëmbal pourquoi pas yóbbuwoo ko grand théâtre waaw man nag man sama affaire toppandoo bokk ci man li ñëpp di def bugguma ko def man euh, sama àdduna noonu laa koy defee depuis ma nekk xale sax euh, man fi may teg sama bëtt ambition bi may am fu jóge fii dem fii day nekk loo xam ne nit ñi xalaatuñ ko woon xam nga dafa nekk benn affaire boo xam ne phénomène day ñëw rek ñu di ko def actuellement grand théâtre ñi ko mën ñu ngi koy def ñi ko mënul ñu ngi koy def te après ay difficulté la leen di indil yoo xam ni man xam naa xëy na ak ñu war a xam-xam man nekkul ne mun mun naa organiser sax dem saraanu fi ma ko doon defee mais ba tey day day du doon benn du doon benn euh, parce que euh, mën artistes yi mën nañoo bëri dafa organiser mais nekk mën na bañ a doon benn euh, tamit man. Euh, sama xarit yi bëgg nañu ma organiser fa ki nga xam ne mooy directeur de grand théâtre muy kees boso bi ñuy xamante yi yëpp xewut dañoo xamante depuis Belgique muy sama xarit daf may woo jàppal dat nangam man ak ah, maa ngi dem Amérique su ma ñëwee jàpp dat ça fait trois ans loolu la may wax jàppal dat defal lii ma ne ko maa ngi dem Amérique su ma ñëwee jàpp mais sama yëngu bi may yëngu moo mayul temps boobu te xam nga rek musique dafa xaw a metti benn time danga fay nekk sa alal yëpp da ngay jël investir ko ci. waaw te xam nga rek mooy loolu benn moment nag da ngay soxla sa bopp ak sa njaboot war liggéey pour yow sa avantage si doom yi ak seen dund ak sa kanam parce que musique dafa metti frais dafa metti chaque jour yaa ngi jënd daal yaa ngi jënd pochette yaa ngi jënd mbubb yaa ngi jënd sëbo yaa ngi jënd lépp xam da ngay dem ba amatoo temps genc da ngay fàtte sa njaboot fàtte sa bopp fàtte sa kër lépp nga koy def ci musique xam nga ñu lay dégg tout temps ba pare am yeneen problème yoo xam ne ci biir réglé wuloo ko loolu laa xaw a sentir moo tax ma xaw a wàññi ko tuuti génn ci géew bi waaye dara sant yàlla naa julli ci Seydina Mohamed maa ngi joué bu baax sax di dem di joué samay spectacle samay programme ak yëpp waaw xëy na rek jot bi dem ci télé bi en 100 pour cent ni ma ko doon defee jot boobu laa amatul parce que tukki bi duma ko may tey mois de mai laa fiy jóge nekk Amérique ba septembre euh, ci tabaski bi jub si ci laay ñëw ba pare am fa yenen programme yi tam yo xam ne koy def amerique diko and ak ay musiciens sénégalais yi fa nek di dem ci 52 pays yépp di jouer waaw sant yalla bu baax. ok mama El Vision dafa am ben série bu ñuy tourner ñu diko wax euh, noy moy to sa non ñu gis ne non instant bi dafa bari ci euh, monde bi euh, surtout ci milieu bi ñuy yëngu muy milieu showbiz te yow ngay nanan machallah allah porteur de voix xeyna na yow di nga ñu ci mëna wax dara ñu bëgg nga indil ñu ci tuuti léralal rek. waaw ku baax bari non ku tekki bari ay non boo ko xoolee ci bi ngay doog a door taxoo amoo mënoo da ngay bëri ay xarit ak i ak i àndandoo bis boo rawee sa moroom dara rek noonu day ñëw ay jalousie day xaw a dugg loolu dañ koy dund. ba pare noonu dafa baax soo amul noonu doo calculer dara mais boo amee noon di nga calculer di nga sóoraale di nga xam li ngay wax dinga xam fooy teg sa tànk dama dama naan euh, noonu médicament la. waaw mu ngi ne ne boo amee benn douleur buy metti ci yow dangay dem pharmacie xool médicament bi ngay jënd nga naan ko mu calmer man loolu laa wax man daal noonu du ma déranger man noon faat man faat loobe noonu man médicament la ci man ndax daf may yokk jom yokk ma fulla yokk ma fayda noonu day tax may jomb lu bari du ko def du ko wax waaw mais boo amul noonu doo faale dara noonu baax na baax na trop waaye nag du tere rek nga leen di fente des fois buñ ko tegee fii nga teg ko fële